الله من الشيطان الرجيم حول قوة إلا بالله العظيم lii nag ñu ngi koy sante mbooloo mi surtout nag suñu maire bi nga xam ne mooy Pala lii du guléet nag bu doon guléet ñu mën a mais lii dafa fekk muy góorgóorlu guddi ak bëccëg tey ci doom la sët la taalu bi la te mi ngi koy defe di ko waxe nit nag bu fekkente ne la mag moom lu baax lay def di ko wax yàlla da koy dimbali fu mu toll bu yóbboo sant yàlla taxam xam ne lépp lu mu ñaan ci yàlla bu jiyee te lu baax sàmbar mën na koo defal maa ngi leen di sant yéen ñëpp nag di leen gërëm di muslu ci mbas mi sàmbaram yemale ko fi bi jaay Seydou Diop ci màgg alxuraan karim ah ndigle moom dafa war war ku mu doon ndax loo xam ne bu ñu la ko waxee borom yaram sa jàmm ak sa jàmm yaram ak sa jàmm njaboot bu ñu la ko digalee lu war def mu war koo def soo ko defu tam wàcc nga yoon te ñëpp d'accord ci ni lii lu yàlla wàcc la du gàcce fenn ndax àddunaa ko bokk yàlla nag lu ko neex lay def waaye lii ñu ci ñaan yàlla njaboot gi yëpp ñu tey seen doom tey seen i jarbaat tey seen i sët ba lii yàlla wàcc ko fi génn ko fi ci jàmm ak salaam bi jaay xuraan ak karim Paala na ñu ngi ko sant di koy gërëm di ko ñaanal fa mu bëgg ak yàlla na ko naa borom yeggale ci màgg alxuraan ak wasalaam man nag maay alaaji Mamadou Jiite di délégué quartier Fann am téeméeri at ak juróom judd 1915 sëñ Touba ma tudd ca Ngaay 1915 ah, léegi nag ma jàngal xaan ah, ba wàcc bind kaamil ci fukki at juróom-ñeent sant yàlla nekk fii nag ci Dakar ah ci Fann Hock 72 fi.